sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain laqin lisani wahlulan minhu loqat waj'alhu shakiran wa zakiran abad waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam bu tedd boobu di ñaam suñu borom bi subhaanahu wa defal leen jàmm waaye defal leen xéewal defal leen tawféex comme ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen rekk ci ay bis bu jot di fàttalante ak yéen téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tuddee nahju xadaa'il xaaj te ñu wéyaloon ci ak yéen ay bind yu xaw a takku waaye suñu bind bu mujj ñu taxawoon ci fi nga xam ne sëriñ bi daf ci doon soññee ci xam-xam ak yitte juñ ko war a jox waaye it ak coono buñ ci war a daj bu ñu koy eh, sàkku mu mel ni sëriñ bi mi ngi doon wax ba bay wax ne xam-xam su fekkee ne danga nga cee bëgg tuuti da ngay jël sa lépp jox ko waaye dangay ngay fexey di fokk guddi di nungoo xiif di nungoo sonal sa cër yépp waaye it boo koy sàkku nga ànd ci nga ànd ci ak ay teggin loolu la sëriñ bi wax ne képp koo xam ne sàkkoowu ko noonu euh, bu ca yaakaaree lu bareet mën naa am du ko ca am wala bu cee yaakaaree barkeet mën naa am bu ko amee du ko bu amee xam-xam ba tamit mën naa bañ am barke kon ngir mu am barke ngir mu mën a jariñ nit ki mu man cee jariñu faaw nit ki daf koy jox yitte waaye fawu nit ki da koy sàkku ànd ci ay teggiin waaye fawu day jaral nit ki foofu lañ taxawoon ci bayit bi nga xam ne sëriñ bi mi ngi fay wax ne man lam yarumhu hakaza faw yazfaw minhu bi tailin kazaka axbaru ñuy continuer suñu bindu tay rekk di sof ci foofu nga xam ne fi lañu taxawoon waaye it bindub tay bi ci loolu rekk lay waxaat ba tey muy xam-xam ak yitte ju ko war a jox mu ne wa axbaru xibaar nañ aydan ba tey bi annahu naka moom xam-xam nafuurun ab foñaa kon la fala yanaaluhu du ko am wala du ko du ko du ko ki nga xam ne siwa fatan lu dut nga xam ne sabuurun ab muñkot la maanaam fala yanaaluhu du ko am siwa fatan ndare kem si nga xam ne sabuurun am muñaa kon la nena na xam-xam dafa doon ab foñaakon maanaam day daw nit ki nee na kenn mënu koo am na kudut koo xam ne danga yore jikko ji nga xam ne mooy ab muñkat dëgg moom mooy ki nga xam ne moom moo mën a am xam-xam kon képp koo xam ne mënoo muñ euh, jàppal ne boo ne da nga bëgg xam-xam tamit bëgg nga lu lu jomb waaye bëgg nga loo xam ne am ko dana la jafe ndax li tax sëriñ bi ne dafa mën a foñ moom xam-xam dafa mën a daw nit ki te kenn du ko am ku dut ku mën a ndax ya nga xam ne moom la jiital ca kaw ne ku ko bëgg noonu nga koy sàkkoo euh, bakkan bakkan bakkanub doomu aadama bi daf ko bëgg lool kon koo xam ne sa bakkan dafa bëgg lool te mënoo koo muñ ne na euh, pour nga am xam-xam dana xaw a jafe lool dana xaw a euh, yéeme lool kon ne na koo xam ne bëgg nga ko kon faaw da nga tëj sa bakkan waaye faaw yi nga xam ne dafa neex ci bakkan yépp nga euh, dëddu ko waaye faaw nga not sa bakkan bu baax a baax a baax su ko defee not gi nga ko not fa ngay jaare mën a muñ waaye ca ngay jaare di euh, mën a xiif waaye ca ngay jaare di mën a fokk guddi yooyu yëpp bakkan daf ko bëgg kon su ko nit ki muñee loola mën na koo dimbali euh, xam-xam ba nga xam ne moom lay sàkku mu man caa am astuut mu ne wa dum na nga sax yow mi nga xam ne yaay aji sàkku xam-xam ala tawaadoxin ci ak toroxlu bilimtihaani ci lu dul doya dal waxta taallumi ca waxtu wa ngay sàkkoo xam-xam tanal kon da nga am nuural janaani leerub xol nee na yow mi nga xam ne yaay aji sàkku xam-xam day na sax ci ak toroxlu saa boo xamee ne yaa ngi sàkku xam-xam day na nga toroxlu ca kanam ka nga koy sàkkoo Euh, ndax euh, dañuy wax ci xadis ne man tawaadaa lillahi rafaahullah képp koo xam ne toroxlu nga te yàlla rek tax euh, ne na suñu borom subhanahu wa taala dana la yëkkati kon su fekkee ne da ngay sàkku xam-xam bëgg xam-xam boobu yëkkati la ci kanam ki nga koy sàkkoo na nga toroxlu ci kanam waaye bul ko woon jenn daraja waaye nag boo toroxloo ci kanamam ba pare tamit na nga jox yitte li nga xam ne moom ngay sàkku waaye bul ko bul ko doyodal mukk bul ko doyodal bul doyadal ki nga xam ne moo lay jox xam-xam waaye it lim lay jox bu ko doyadal ndax ñaar yooyu bu ci am rek nit ki la muy saako mën na caa bañ a jot kon nee na su fekkee ne bëgg nga am leeral xol dëgg-dëgg sooy saako xam-xam na nga ko saakoo noonu nanga nga toroxlu waaye bul doyadal xam-xam bi te it bul doyadal ki la koy jox ndax nee na al ilmu nuurun wa nuuru laa yontaa lil aasi xam-xam kat ak leer la te ak leer kenn du ko jox kuy mooy yàlla. kon fexeyal ba booy sàkku xam-xam nga fexey mucc ci li nga xam ne mooy li suñu borom bi subhanahu wa taala di tere waaye na nga loolu sëriñ bi dénkaane ci téere bi nga takkoo ko muy di toroxlu ak lam la wax ca euh, bayi dañ weesu yëpp nga fexey takkoo ak moom ngir nga man caa euh, am la nga xam ne moom ngay sàkku mu ne fal mu mutaallimu aji xamlu ji isa kabara ndéem rëy rëylu na fala yanaalu du am bel muraadi ca càkkutéef la azafara ak tuuf dana ki nga xam ne day sàkku xam-xam day saa bu toogee ci kanam ci muy sàkkoo xam-xam di rëy rëylu wala mu koy won ne nii laa mel wala mu koy won dama am xam-xam te euh, bëggu ko ci moom ne na yooyu yëpp su ko euh, kii sàkku xam-xam dee def loolo daf koy xañ li nga xam ne moom lay sàkku muy xam-xam waaye daf koy euh, xañ Euh, li nga xam ne moom la ci war a na euh, gañe lépp ci xam ko ak man koo jëfe yooyu yëpp bu boobaa day fàddu ngir lan ngir jikko jam àndal bam koy sàkku mu baaxut mooy lan mooy di rëy rëylu kon euh, nit ki buy sàkku xam-xam li ko war rek ci kanam ki nga xam ne moo di ab sëriñam mooy mu toroxlu ci kanamam won ko ne ah man de lii nga yor moom laa soxla te li ma ciy jotale mooy topp ci say digal waaye bàyyi say tere mu ne daay na nga bàyyi atarafuha nooflaay ba wala tajlis te bul toog abad faw ala firashin ci kaw ab lal waxtahu ca waxtu wa ngay sàkkoo xam-xam bila naka ci lenn lu dut ab coono nee na na nga ba booy sàkku xam-xam bul jiital am nooflaay maanaam bëgg sàkku xam-xam te ne man de fi may sàkkoo xam-xam ni ma ni ma neex rek lay mel maanaam dina rafet Euh, dina am nangam dina am nangam bëgg euh, xool say condition yi nga xam ne da nga naan ci laay sàkkoo xam-xam nee na loolu soo ko soo ko defee la nga bëgg ci xam-xam ba mën nga koo bañ am waaye mën ngaa bañ jot sax ca xam-xam ba nga xam ne moom ngay sàkku kon nee na na nga bàyyi bëgg am nooflaay sooy sàkku xam-xam bul bëgg am nooflaay waaye booy sàkku ab xam-xam teg ay condition ne su yi amul duma ci sàkkoo xam-xam ndax yaa am loo bëgg te ku am loo bëgg faaw nga nga nga sonn moo tax mu nekkoon na nga bàyyi di sàkku am nooflaay booy sàkku xam-xam bul sàkku am nooflaay waaye bul toog ci kaw mukk ci lu du lor su fekkee ne lor dafa am nag ba nga xam ne fi ngeen di sàkkoo xam-xam moom noonu lañ ko liggéeyee ngir ngay toog ci kaw bu boobaa loola lor la da ngay toogandoo ak ñëpp ci kaw waaye su dee loola amul nga ñëw ci ab sëriñ mu lay jàngal lu mel ni majlis wala yu demee noonu bu boobaa nee na na nga toog ci suuf waaye bul sàkkoo toog ci kaw bu fekkee ne sëriñ bi daa toog ci la gën di ay teggin mooy nga bañ a bokk ak moom sax basan gi waaye nga toog ci ci suuf mu ne wal taj maay na nga dajale alhimmata yitte ya fii maa ca la nga xam ne tatlubu bu danga ko sàkku bilal ti faatin ci ludut gestu li siwaa maa ndare la nga xam ne yejibu dana wa nee na sooy sàkku xam-xam day na nga dajale mboolem luy yitte maanaam na nga ko jox yitte li nga xam ne moom ngay sàkku muy xam-xam na ko jox yitte yut yitte joo ko jox rek doyut xam-xam yitte ju ko ki koy sàkku jox doyut waaye euh, cër bu mu ko jox doyut temps bu mu ko jox doyut ndax xam-xam dafa doon loo xam ne waxoon na la ko ca kaw nee na la da ngay jël sa lépp jëbbal ma ko su ko defee man ma jël sama lenn jox la ko kon su fekkee ne bëgg nga ci dara na nga fexe nga jël sa lépp jox ko ko waaye nga jël sa euh, yitte muy sa himma nga jox ko ko ndax sëriñ bi doon na wax ne Euh, euh, yonente bi daf ko feeñu ne ko rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat kon himma muy yitte lu ama am solo la ndax sëriñ bi foofu mi fi wax ne euh, biñ ko feeñoo dañ ko wax ne ko sa saxaaba yi nga xam ne ñoo la topp naga leen yar ci yitte waale bu leen yar ci ab am am bind am njàng rek bu leen ci yar waaye na leen yar ci yitte ju kawe kon nit ki lu muy sàkku def caa war jiital yitte ju kawe rawatina nag xam-xam kon ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam na fexey ba euh, dajale mbooleem luy yitte rek mu def ko ci xam-xam ba muy sàkku bu dara doon yitteem lu dut am li nga xam ne moom lay sàkku muy xam-xam boobe bum geesu mukk jëm ci nit ñi ci lu ñu am ak lu ñu amut yooyu yëpp na ko bàyyi ginnaaw ndax kuy sàkku xam-xam fawu nga muñ fawu nga gis lu ne waaye euh, da ngay gëmm say bët waaye sàkk say nopp rek euh, li nga xam ne moom nga bëgg nga jox ko yitte te dox jëm ca mu ne wala takun bul nekk zastimaain di boroomu déglu linnaasi ñeel nit ñi walillas yi ak ca la nga xam ne hum ñoom fii nekk nañ ca min nisaan ci ak xëccoo ne na bul euh, booy sàkku xam-xam nag bul nekk di déglu nit ñi mukk ca la nga xam ne moom la ñuy werante ak a xëccoo kii naa euh, lii la kee wax wala lee la kee wax yooyu yëpp dana amut solo ci sàkku xam-xam maanaam ak xëccoo ci la nit ñi di wax nga koy déglu di ca bàyyi xel ne na loolu amut amut amut solo ndax loolu day tardeel ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam waaye day tax li nga xam ne moom lay sàkku muy xam mu yeex ca am la nga xam ne moom la moom lay mébét dëgg-dëgg mu ne walaatu axiri bul yeexe ataalluma xam lu ga wala takun te bul nekk musawwifan di aji niig niigal bihi ca sàkku xam-xam ga dëhëran benn jamono ilaa tafarruxin jëm ci ak féexlu min jumlatil asxaali ci mbooleem soxla yi in rumta ndem sàkk nga antal xaqa nga jot bir rijaali ca góor yàlla yey ay góor yàlla dëgg-dëgg nee na xam-xam de boo ko bëggee sàkk bul ko yeexe te it bul niigal niig niigal mooy lan war a jug sàkku ji xam-xam ci jamono ji nga doone ndaw nga naan naa bàyyi ba am nangam wala naa bàyyi ba def nangam bu pare nee na yooyu soo koy def nee na loolu day tax euh, xam-xam bi nga xam ne moom nga bëgg mënoo ko am waaye lay tee sax am ab xam-xam nee na xam-xam dafa am temps buñ ko war a jox dafa am ci waxtu woo xam ne ci la gën a yàlla ñu sàkkoo ko ca nee na kon saa boo tollee ca waxtu woo bul ko yeexe mukk bul niig niigal bul ne damay xaar ba dara demal nga sàkku ji ko te bul xool lenn loo xam ne moom moo la gënal xam-xam ci jamono jooja nee na na nga jël xam-xam nga def ko muy priorité ndax su doonee priorité rek mooy loo xam ne moo gën a yàlla ci yow lépp soo ko defee nee na bu boobaa di nga di di nga di dina la jox leen nam moom xam-xam nee na kon bul jëm mukk ci féexlu di féexlu di bëgg am noflaay wala yooyu nee na yooyu yëpp bul ko def soo bëggee sàkku xam-xam waaye bul ko yeexe te it bul niig niigal ne na su fekkee ne bëgg ngaa jur dëgg-dëgg góor yàlla ya ne na yooyu mu la wax di booy sàkku xam-xam di nga ko moytandiku mooy yeex ko sàkku ji ak di ko sàkku di euh, niig niigal wala ngay tàyyeel wala ngay jël ay soxla di ko teg ci kaw xam-xam naan damaa am soxla sii damaa am soxla see faaw soxla yi ma def ko ba pare faaw ma defar lii ba pare doog a mën a sàkku ji xam-xam yooyu yëpp ne na soo ko defee euh, loolu daf lay gàllankoor ba ña nga xam ne ñooy góor yàlla ya nga xam ne raw nan seenu maas te ci yitte ju kawe ak sàkkoon xam-xam ak bëgg ko mu gënal leen lépp lañ rawe ñëpp ne na bu boobaa ñooña moom di nga leen yéex a yéex a dab ne na kon soo leen bëggee euh, jot ñoom ñooñee nga xam ne ñooy góor yàlla yooyee di gaayu baax yi nga xam ne ñoo fi nekkoon joxoon xam-xam yitte kon faw li nga xam ne mooy sa yitte yëpp yoon nga jël ko euh, def ko ci xam ndax ne fa inna lillazi fa inna li dunya naka ñeel na àdduna humuman ay yitte tamnaw dat day aaye minal huda ci ak njub wa hiya te moom yitte yooyee laatan xatiyo du du dog mu tax mu ne fa inna li dunya naka ñeel na àdduna humuman ay yitte tamnaw yooyu day aaye minal huda ci ak njub wa hiya te moom yitte yooyee laatan du dag mukk nee na ndax àdduna de ay yitte ngi fi yoo xam ne day tere nit ki mu aw ci yoonu njub te yitte yooyu nee na du jeex mukk yitte yooyu du jeex mukk day dàq doomu aadama bi di ko topp giirug dundam yitte du jeex ndax benn soxla boo xam ne moom nga faj ne bu ma fajee bii de mën a dem sàkku ji xam-xam boo paree beneen taxaw kon benn euh, mbir mbir yi nga xam ne moo lay gaar ci àdduna su la teree sàkku xam-xam na nga xam ne mbir yooyu moom du loo xam ne day day day day am tey bu subaa du am wala day am suba bu ginnaaw subaa du am déedéet waaye ay mbir la yoo xam ne dalay topp sa ngirub dund kon yooyu su fekkee ne daf laa gàllankoor ci sàkku ji xam-xam bu boobaa na nga xam ne euh, loolo moom mën na laa gàllankoor sa ngiiru dund te it mën na laa tee am li nga xam ne moo di ak njub waaye mën na laa teree am xam-xam ndax yitte yooyu ay mbir la yoo xam ne du dog mukk te mën naa gàllankoor nit ki ci sàkku xam-xam mën na koo gàllankoor ci ak jaamu yàlla mën na koo gàllankoor lu bëree bëree bëree bëri kon yitte àdduna muy euh, yitte yi nga xam ne moo am ci àdduna saa boo xamee ne daf laa jañ ba teelaa topp suñu borom teelaa sàkku xam-xam teelaa xam say farata teelaa xam li nga xam ne moom nga war a jaamu yàlla ne na yooyu day na nga xam ne saa boo ko jëlee jiital ko Euh, ne dama koy euh, faj ba pare doog a dëpp xool nu may jànge xool nu may jaamoo ji yàlla nanga xam ne euh, yitte yooyu moom du la du la mas a wàcc te kon bu boobaa xam-xam bi ngay wax ak jaamu yàlla géeg ya nga xam ne moo ci aju ak la lay gindi yooyu yëpp man nga koo néglise ba ëllëg sa nga bàyyi koo fi moo tax mu ne mu tekke ne wal mawtu te faatu ya ci day dikk baxtatan ci ak mbetteel wa rubbama te amaana yakunu mu nekk muxtariman di aj dog za sawaaxilin za sawaaxilin di boroomi soxla nee na faatu de day dikk ci mbetteel te amaana bu dikk maanaam bariwaana mu dikk moom faatu euh, fekk nit ki ci ay soxla yu baree baree bari mu dagg ko fa maanaam bariwut nit koo xam ne faatuwut te bàyyiwut ay mébét loolu li muy tegtale rek mooy li mu la wax ne nit ki li feek mu ngi dund mi ngi am ay yitte kon yitte yooyu bu ko tee topp suñu borom bi subhaanahu wa taala tee ko euh, li nga xam ne mooy xam na xam ne yitte yooyu moom moom moom ba euh, biir bàmmeel moo tax mu ne la kon faatu moom mbir la moo xam ne luy bette la suy ñëw day bette te bariwaana mu ñëw fekk nit ki ci ay soxlaam yoo xam ne soxla yu ko ñoro ñor la waaye du ko fa sax mu koy eggale ndax bari na ku bariwaana ku tàmbali ab projet bala moo eggale projet booba suñu borom bi subhaanahu jël ko Euh, bari waana ku tàmbali ne day defar kër bala moo egg suñu borom subhanahu wa jël ko te loolu lépp ay yitte la ak i soxla yoo xam ne euh, mën nañ cee jàngate ne euh, adduna moom moo ay soxla ak yitte ñoo ànd kon bu la def ak jaamu yàlla yitte yooyu ak soxla yooyu bu la teree def ak jaamu yàlla wala mu tere laa topp yàlla wala mu tere laa sàkku xam-xam na nga xam ne ëllëg moom ci pertaangi rek ngay ngay mujj moo tax mu ne yaan yi li mu jublu anna lil ilmi naka ñeel na xam-xam euh, anna al ilma naka xam-xam saabun lu jafe la azizun waaye lu tedd la laa yanaalu du am euh, wala déefut am moom xam-xam illa bi xabsi nafsi ndara ji tëj bakkan an mulaqaatin walif dajeek li nga xam ne moom lay bañ moom bakkan dana xam-xam de mbir la moo xam ne mu jafe la waaye it mbir la moo xam ne mu tedd la Euh, kenn nag du ko am kudut ku tëj bakkanam maanaam képp koo xam ne jëloo sa bakkan wutal ko ab jéng jéng ko ci li nga xam ne mooy bànneex yi nga tëj ko ci nee su fekkee ne bëgg nga sàkku xam-xam xamal ne boo ca duggee doo ca mujj ndax li lay tere sàkku xam-xam mooy sa bakkan kon nit ki su fekkee ne dafa bëgg a sàkku xam-xam wala mu bëgg a topp yàlla la muy jëkk a def mooy na fexey jël bakkanam wutal ko ab jéng tëj ko kànnaare ko ba li nga xam ne moom lay bëgg lépp du ci ànd ak moom ndax bakkan saa boo ko toppee ci lim bëgg mu euh, dugal la ci euh, lu la neexut moo tax mu ne wa annahu naka moom laa yu'tika du la jox moom xam-xam ba'dahu lennam hatta tu'tiyahu ndare nga jox ko kullaka lépp nee na xam-xam day euh, na fulla ju toll nii bala mu laa jox lennam yow doomu aadama bi nga jël sa lépp jébbal ko ko yow doo amati yenn benn soxla judut moom xam-xam kon nit ki su fekkee ne bëgg naa am dara ci xam-xam na jël lépp léppam jébbal ko xam-xam su ko defee xam-xam daal di jël am moom daal di ko koy jox mu ne it wa man lam yu jawwex képp koo xam ne xiifalut fii ngir xam-xam bat na woo biiram wa yashar te muy fog laylahu guddeem wa yasma te muy mar naxaaruhu bëccëgam wayu taxib tamit sonal jawaarixahu ay cëram lam yasfar du tuuf minhu ci xam-xam li anna al ilma ndaka xam-xam day nafuurun ab foñaa kon la laa yanaaluhu du ko am illaa saburun ndare ab muñkat nee na euh, képp koo xam ne day xiifaloo sa biir maanaam jox biir lu mu la laaj nga jox ko ko euh, guddi euh, da ngay nelaw ba bët set doo mar bëccëg doo sonal say cër ci dara maanaam xam-xam amul lenn lum la jarale sonne ne na nga xam ne yow de bu fekkee ne da bëgg xam-xam tamit bëgg nga lu jomb kon xam su fekkee ne nit ki daf ko bëgg dina jël lennam dina jël léppam jox ko ko su ko defee xam dooga euh, wëlbatiku jël lennam moom daal di ko koy jox moo tax mu ne kon bu fekkee ne da koo bëgg na ngay di ñime ab xiif waaye na ngay fexe di euh, niiwal ay nelaw na nga ñime aw mar waaye na nga so nu ngoo sonal sa cër yépp waaye Euh, loolu mooy li nga xam ne mooy tax nit ki mën a tuufu mooy tax nit ki mën a am dara ci xam-xam te loolu nag kenn mënu ko kudut koo xam ne suñu borom subhanahu wa dafa def ci yow koy muñ waaye dafa def ci yow nga fexey ba not sa bakkan ba li nga xam ne moom lay bëgg doo ci ànd ak moom kon xam-xam mbokk yi mbir mu euh, tedd la mbir mu ama am solo la waaye nit ki war naa fexey ba euh, sàkku ko waaye bu koy sàkku na ko jiima sàkkoo ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi ndax su ko nit ki sàkkoo noonu la nga xam ne moom lay bëgg ci la koy mën a waaye bu ko sàkkoo ci weneen anam man naa am la nga xam ne moom la ci yéene ak lam ci bëgg euh, man naa jomb kon ñi ngi tuub bu baax tey jégglu di wàcc foofu suñu kàddu di wax ne in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ala sahabati wa saadati